إلى سوى النحو وبالإخلاص جلي إلى الجنة بالإخلاص إلا سوى النحو وبالإخلاص جلي إلى الجنة بالإخلاص إلا سوى نوي بالإخلاص جلي إلى الجنات بالإخلاص إلى سوى النوي وبالإخلاص جلي إلى الجنات بالإخلاص إلى سوى النوي وبالإخلاص جلي إلى الجنات بالإخلاص aw ma maqaamam di la woo waaye murid yi noo ma woo na tawatal te bul woo saw laa mi ñooy woo xarnu bi tey ji ma wax ba ni tëreet ngir yaa ma def antal pareet yaa fa bi xam-xam ne kuy ci sama xel bi tabul ma tan xam lu ci ñaan ngir li ma bon tey ko ñaan murid yëpp le ko ñaan moo tee nga dekkal xarnu bi Sëriñ Saaliw jooyu berantal laanu jooy boonu fa bu leenu ne wooy ku nu yëfal bandi fi kuy mu jiital xarnu bi gisunu yaay te noo ngi raam ku ñàkk yaay day namp maam buural te bon nga la daam rogantil mboolem xarnu bi fa ba sa njaboot gi yëpp mboot ñoom it ñu boot seenu njaboot ku munta nga jox ko mboot ngir yàlla na atal xarnu bi ta fam njaboot gi suutural motali jàkke ji nu naal fotol doli seen alaal ngir yàlla naatal xarnu bi yab na xadimal Moustapha yow mi nu tudde Moustapha Cheikh Modou Moustapha borom Taïf yaa jëf lu suura fa daane nga mbëri soora dem li tax amoo yow dendandoo jagle nga am ciw turandoo ngir ko fi bokkal turandoo amina tudd doon ndayam mbaa bu ami doone ndayam seexul xadim du waajuram teyu du am ngor gi nga am gi jagle yow rek ko am amina too jur musafa aminta loo jur seex moodu musawa kon meeta fa mooy miita fa li tax mu sang ay kemam madina geeg taayif gële tuubaa gi leeg taayif gile meetari noo ko tollale kum neex nga dem na ti ba xam ba ne woon ca Moustapha moo nekk ci Cheikh Modou Moustapha ngor ga ne woon ca Moustapha gis nan ko it ci miitam Cheikh Moustapha musula war talum la wax loo leela lum la dig fayee ko bor kenn musu ko gis mu bangam Cheikh Moustapha musula war talum la wax loo nar moom lum la dig fayee ko bor musu ko gis mu bangam Allahu moo di fadlu azim ku may nga neel dee fu la yem sëñ Fallu mooy fadlul amin turam wi doy na xarnu bi mooy doomi samsun wa xamar mbakke bu soobe dun fajar moo namp yaari weeni ngor mooy bamba tey ji xarnu bi sëñ fallu si di ti baayam la yoraat leeruk cosaan gi dey royaat nda jadi xëyri mu naan moo am mi mbooti mooy nobel islam gi tey mboolem sërif moo ci gën doon na ya seen wala den may ci xarnu bi sëñ sërif la maamam sërif la sërifun bun sërifun tuuma jubluwu la du xotti saatir du tas yaakaar du daw ku ko ku laaj mu may la nga géejël sëñ Fallu xaniyu la bay la maana daa Seex Fallu fii abadin xayri ila maana daa tan ya xam nanu la lox borom nguur ga ko def na yaay kii jubóog waalu diiwaan de seen mboolo la la wax borom nguur ga ko def na yaay ki jubóog wàllu diwaan di seen mbooloo ma xam nanu la nanta gaama dul lamin sëriñ baara moom la nu may sirun masxoon xar baax la fee sebban negum baay baakolam ci xarnu bi sëñ baara baatin ba jaaxal na ka moo tax ñu fab ko lëm ci biir boo ko gisee ma ngay ba ne kuy lu mad ci xarnu bi fajaajo mu ca gën a lu wax boroomam mu ne waaw day fal di folle ci nu gaaw mat naa ci xarnu bi Seex Mustafaa li mu laajoon moo di ñaar fukk nag yu teg juróom ñett sëñ Fallou di kànne na gaaw Seex Abdoulaye yokku tey ji nag jumaa yi fu neew da cee sof lim fi toog dafa néew Sëriñ Saliou ñëw ful miliyaar yi bambari lool fulaat jumaa yi te lu mu wax bokku ne waaw sëñ Baara ñëw dal ne Tuuba ak Makka ak Madina ñoo war di yam tëli pincam yëpp won nu gannaaw Seex Sidi Motaar bu dikkee sof colan fi sosoon Seex Muntaxa jàmbaar ja sosaat fi lin fi sosoon kuy wut ngërëm ci Sëriñ Tuuba da cee war a gaaw ña dingatoon ñeele nag ñoo dingat kile tadu tee lim sumbu yegg lu am ay dunq faawu mu naaw ña dingatoon ñeele nag ñoo dingat kile tadu tee lim sumbu yegg lu am ay dunq faawu mu diggantoon ñële nag ñoo dingat kile ta du tee lim sumb yegg am ay dunq faaw mu naaw jooy naa ko jooy xol yu foor man ñàkk naa u foor jooy naa ko jooy xol yu man ñàkk na weer leeram gi leeral na xarnu bi jooy naa jooy xol yu foor man ñàkk naa foor bàyyi sëriñ Seex Saaliwu jant la moom fawqa na weer leeram gi leeral na xarnu bi Amadou Fall seen njaay biram jëbi macca ngaay góor dëgg bay lal la faal si xibra faal du am morom ku ci gida doo too ko war sa xarit doo kuy waaxu yu dootoo ko jot fa mu ne bamba ko fa teg ku wax lu amul morom to fa mbiram jébbal ko moom aw ndigalam def ko borom yàq nga fenru ngeta gag jaarama waayu bamba ji moom di sangub sang yi lamp tel donga yi am ngay ndang teg ëllëg lar suka bi nguuni jeeyi seera faal yaa moom yoon wi lar suka bi nguuni jeeyi seera faal lay way ta jànguma ba yaa ma badil ba ma lay way ta jànguma ba Cheikh Isa Jeey Fatim Penda damel Samba yaaya Faal damel Funjoogu damel Jeecaraw damel Samba yaaya Faal Cheikh Faal lar suka bengu ni jeey Sera Faal yaa moom yoon yaa dey Cheikh